Euh, bagage bi ñu leen woon nag bagage la boo xam ni moom la ñuy wax affaire gàllaaj gàllaaj nag moom dañ leen di waxtaanal ci jafe-jafe yi nga xam ni moo ci am jaayuñu ko mayewuñu ko diglewuñ ko waaye tere bi ko yàlla tere ak ni mu bone ci diine ak ni muy yàq doomu aadama moom la bëgg a waxtaanee ak yéen waaye tekkiwul ne nag dañoo ñëw pour jaay gàllaaj yi jaayuñu ko de mayewuñu ko saraxewuñ ko mais dañu leen ciy rek nag ndax njabarkat yi dañu lëmbe réew mi benn façon boo xam ni doomu adama yi dañu dem ba jël place yàlla def ko place njabarkat yi loolu moo tax tey ñu war a ñëw pour waxtaan ak yéen ci bagaas bi mu nekk bagage boo xam ne nag képp koo xam ne sukkandiku da nga sukkandiku ci lii na nga xam ne yaa ngi sukkandiku ci lu ñàkk solo loo xam ne mënul dara parce que tey boo feebaroon dem hôpital dañ koy dindi boo amee problème boo agsee police li ñu njëkk a def mooy tekk sa boo waree dem màkk doo ko yóbbu soo dee ñu tekki ko kon naka lay régler problème loolu la ñu war a taxaw pour laaj leen ko nag loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk bagage a ngi nii yoo xam ni mayewuñu ko diglewuñ ko loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk waaye jafe-jafe yi ci nekk ci wàllu diine moom la ñu bëgg waxtaanee ak yéen loolu moo waral ñuy wër dëkk bi maanaam di leen ci yee ndax jabarkat yi dañu lëmbe réew mi dañoo bëri benn façon bëriwaay boo xam ni dañoo dem a dem a dem a dem ba doomu aadama yi fi ñu waroon a teg yàlla fa leen teg njabarkat yi loolu la lañ jóg tey maanaam pour xeex mbir moomu daara ji nag mooy daara bi nga xam ne mooy daara wéetal borom bi taara koo taalaa li ko tax a jóg mooy xeex xërëm ak njabar loolu mooy li nga xam ne moo ko tax a jóg di leen téye bu baax seen àll yi na leen dem nag alhamdulilah macha allah di leen téye bu baax a baax loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk gàllaaj daal bu ñu ko xamoon dëgg-dëgg xam kon gàllankoor lañ koy wooye waaye kenn du ko wooye gàllaaj ndax day tas sa yaakaar rek ndax li koy waral mooy danga koy takk boo demee hôpital ñu dindi ko da nga koy takk boo demee police ñu dindi ko da nga koy takk boo waree dem màkk doo ko yóbbu soo dee ñu tekki ko kon gàllaaj naka lay régler problème bu ñu yàq sa diine ndax boo waxee sa borom iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in lu muy tekki mooy yow rek la ñuy jaamu ci yow lañuy sàkku ndimbal maanaam wax jooju di nekk wax ju wér su boobaa nag boo ne yàlla ihdina siraatal mustaqim nga teg ci yoonu njub yow moom yàlla du la jubanti ak képp ku mel ni yow mbokk yi daaraa ngi nii boo xam ni na ngeen ko bàyyi xel bu baax ndax wootee ngi nii boo xam ni nit ñi fañ leen fi ñu leen di wooyee fekkuñu leen foofu loolu moo tax mbir mi daf leen def soog loolu mooy li nga xam ne ci nekk galaaj yi nga gis nii yëpp ci jaamu yàlla lañ ko jëlee nga ni ma léegi lan la ñu remplacé loolu man da ngay déglu bu baax ma jàngale nu ñuy ñaane yàlla ak naka lañ koy jégaloo ak naka lañ koy sante yàlla subhaana wa taala bu fekkee ni yow nekk nga nit koo xam ni gëm nga yàlla kese gëm nga ko wóolu ko dund yàlla kese fa seeni woloo bokkaale ko maa ngi lay xamal mel ni mbir soo yeewoo rek nel alhamdulillahi rabbil alamin sant borom bi tabaraka wa taala booy wàcc lal bi nga wax auzu billahi min asheytaani rajim nga jàng faatiya faatiya rek mun na koo tëj leen tere boo mokkalee ayat kursi nga jàng ko jàng falaxe ak naasi doyloo ko yàlla moo lay aara boppam ci lu yomb ngeen génn ci wàllu gàllaaj yi nga xam ne tey buñ ko xamoon dëgg dëgg xam kon gàllankoor lañ koy wooyee mais kenn du ko wooyee gàllaaj ndax li koy waral mooy mënul dara dara dara bu dul tas sa yaakaar rek da nga koy takk bi ngay am jàmm mais boo amee jafe-jafe mu bàyyi la fa loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk da koy takk yaakaar ne am nga gàllaaj mais boo demee police li ñuy njëkk a def mooy tekki sa gàllaaj kenn du la ko wax ñaari yoon boo feebaree dem hôpital amatoo sago nga daal di gis médecin bi ci boppam daal di jël ciseau bi dagg tip tip sànni galaaj bi fële boo dee dem màkk doo ko yóbbu soo dee ñu tekk ko waa léegi kon naka lay régler problème du ànd ak yow dee du ànd ak yow feebar du ànd ak yow dem kaso du ànd ak yow tukki mais naka lay régler problème wàllu gàllaaj bu dul gàllankoor la buñ ko xamoon dëgg-dëgg xam kon gàllankoor lañ koy wooye xam yaa ngi ni kër yu bare bare da cee nekk mais lii rek dinañ saay-saay yi ñoo ci nekk di noggatu doomu adama yi loolu lëkkaloo ak ay nit loolu moo fi indi li yëpp dëkk bi métti na waaye li ko métti mooy ñàkk gi ñàkk a jaamu yàlla moom jaamu yàlla bu baax looloo ñu sonal nii du dara loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk ñàkk nañu borom bi taaraka wa taala loolu amuñu réseau daal maanaam tey dafa mel ni ay portable yu abonné am crédit mais nag ñoom amuñu réseau loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax ci buntu bii ñu leen di woo bunta ngi nii boo xam ne day santaane wuñu ngeen takk ko digle wuñ ko maye wuñ ko saraxe wuñ ko waaye bon gi mu bon ci wàllu gàllaaj ak ni muy tase yaakaar loolu rek moo tax nag daara Kennel Yàlla jóg maanaam pour jàppalanteeg yéen ci lii loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk képp ku taxaw ne man damaa gëm gàllaaj kenn mënumaa tekkiloo sama gàllaaj dinaa la xamal ni gàllaaj yooyu ngay gis noonu bi nga am jàmm rek nga koy takk waaye boo amee jafe-jafe dañ koy dindi su ma la tekkil nga bañ am na foo xam ne boo fa yeggee ka lay wax tekkil ko wax ñaari yoon kooku amul benn werante parce que boo duggee gendarmerie léegi rek benn xale bu ndaw ma ay mooy dama tekki sa galaaj yi du ko wax ñaari yoon boo koy tekki sax da ngay profité tekkiwaat ko tekki ko tekki bu gaaw ba léegi rek waa ji di egg sax dàllam yu rëy yooyu loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk kon tekki nga ko ci ñàkk sago boo feebaree dem hôpital ñu daal di koy tekki boo waree dem màkk ñu dindi ko boo dee ñu tekki ko galaaj a ngi nii buñ ko xamoon dëgg dëgg xam kon gàllankoor lañ koy wooyee bu ànd ak yow dee bu ànd ak yow tukki bu ànd ak yow feebar bu ànd ak yow dem kaso loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk na ngeen bàyyi xel bu baax si bunt bi ñu leen di yooy daara kennal yàlla li ko tax a jóg mooy xeex xërëm ak njabar képp ko bëgg a yàq njabarkat ngay dem seeti boo bëggee nopp xale bu jigéen njabarkat ngay seeti boo bëggee nekk sàcc ñu leen takkal ay gallat boo jaaree fi kenn du a gis ba keroog ñu seeti kaso ngay mujje kaso yi fees nañu tepp te kenn tëju leen ku dul njabarkat yi moo tëj xale yi loolu rek mooy li nga xam ne moo ci nekk parce que fit yi ñu am bay def tooxi doona njabarkat yi seen bopp ñoom ñoo leen ko may parce que dañ lay takkal gàllaaj ne la doo ci am benn problème tey rek ngay am problème nag bu la ci am problème tey rek ngay am problème bu wàcc yàlla nee na gàllaaj bi ma lay takkal gàllaaj bu dugg kaso mukk waxu la yow de gàllaaj bi la wax ne du dugg kaso parce que balaa ngay dugg kaso da nga koy tekki loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk gars yi dañ leen nax rek da gis sëriñ boo xam ne daf lay defaral ndombo ne la maa ngi waat waat ci sëriñam yàlla nee na galaaj bi du dugg kaso mukk mukk wax na dëgg galaaj bi du dugg parce que balaa ngay dugg dañ koy tekki mais galaaj bi du dugg mais yow yaay dugg loolu la mbir mi demee yeewu leen dañu leen yee ci ay jafe-jafe rek xam leen lii bu baax léegi nga ni ma léegi man li ma jaaxal mooy su ma tekkee sama galaaj yi léegi naka laay def man la da ngay déglu bu baax ma jox la ñaan yoo xam ni daf lay defar yokk la àdduna ak àllaaxira aar la faj la bokk na ci li may bëgg a wax mooy boo yeewoo rek nel alhamdulilahi rabbil alamin sant borom bi tabaraka wa taala nga ne ma lan moo tax ma war a yeewu sant yàlla ma xamal la ne bi ngay tëdd maanaam misaalu ñetti nit ngeen di nekk waaye bi ngeen di yeewu kenn ki dafay dee kenn ki dafay feebar kenn ki dafay yeewu ci jàmm bés bu yàlla sàkk lii mooy am yow mi yeewu ci jàmm loo war a wax alhamdulilahi rabbil alamin sant borom bi tabaraka wa taala boo ca jógee foo jublu fu ne del musul seytaane boo demee bay tëdd boo toogee sa kaw lal bul jàpp ne ñëpp ñëw de am nga ñeneen ñeent ñoo yeewandool ak yow muy juróom waaye avant ñu dem ngoon yéen a ndekkendoo nga gis ko wala nga bañ ko gis ci benn seconde waaye bala ñu dem ngoon rek am na kenn ku dee ci sóoraale wu ko woon am na kenn ku feebar te doo hôpital sóoraale wu ko am na kenn ku ñu tëj kaso sóoraale wu ko am na kenn ku tukki sóoraale wu ko woon loolu yëpp bés bu yàlla sàkk àdduna ci noonu lay doxee kon boo dellu see ba toog ci kaw lal bi na nga bàyyi xel bu baax ci ne yow yaa ñëw mais am na sa morom yu ñëwul kon loo war a wax alhamdulilahi rabbil alamin sant borom bi taaraka wa taala nañu bàyyi xel ci ma leen di jox ويو رك نال الحمد لله رب العالمين بل واتل البنري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل مكلي نجان فاتي بن بل مكلي آية كرسي نجان كبنيون بل مكلي فلاح الناس نجان كبنيون اللهم صل على سيدنا محمد لول بوتي تنكو يالا موني تيل دوفم تلو يومو نيني باي خلو با يالا دفوهان يونت صلى الله عليه وسلم نكو وخال رك لول مو اندي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لول يالا وخال يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم دفكون وخر رك ولا وخر رك الله سمع العليم سمع دغنا العليم تمام خمنا بنت بي ني لين ييه لا نين تي باي خال بو باخ نده ووتي ني بو جافه بو خمنا فيم نيك ني تاي بو ورون سنغال كيب بو غيسات بنن سار يوب ملني غاني نغي وخ نك واي بو غي براتيك بي لي موم براتيك لا لول موي لي غاني موتي نك سي دير دا فا نيك بروبليم بو خمنا سوكو جوغالي خملو فوي تاخو جبر كات دي دانيي كواليزي ري لا ليكي باسكو لي كورتو نغا داي ني نك دانيو